salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ni seetaan mu leen di euh, nuyu bu baax a baax euh, sëñ Bassirou la waaw tey jii ni nga ko waxee fii nu nekk mooy kër Cheikh Mahamadul Mamoun moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Khadimu Rasoul euh, muy bis bii nga xam ne dañ ci fàttaliku feeñu jamono goog Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ni nga xam ne noonu lañ koy dundale ci béréb yëpp ginnaaw bu ñu ñaanalee Cheikh Mahamadul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi waaye ñaanal Serigne Sidi moom Cheikh Abdou Lahad mi xalifa bi suñu borom yàggal ko fi ñaanal Cheikh Mamadou Mamoun mii euh, bis bi nag euh, kiñ ñu ciy fàttaliku Cheikh Abdou Lahad ran euh, yun taxrif ndax defe naa ku am ay nopp wala nga yor ay gët danga nga dégg jëfam dégg jikkoom gis ko it Cheikh Abdou koo xam ne mbégte la ci umma islam bi yëpp waaye mbégte la ci adduna bi yëpp Cheikh Abdou Lahad moom nga xam ne dafa jaay léppam jënde ko liggéeyal Serigne Touba jëfal Serigne Touba guddeem ak bëccëgam jaay njureelam jënde ko ak taalibeem taxawu Serigne bi ci wet yëpp nga gis jumaa ji gis daaray kaamil gis jàngukaay yi gis jëmmi dëkk bi la sëñ Mahamadul Mamoun ña ngi doon wax naan xamaa madina Touba zaadaha sarafa wa amanal ahlu jiraan wa nuzula aar na Touba sàmm ko ba sécuriser ko ci wet gu nekk loolu Cheikh Abdoul Ahad mu baax mi nuy fàttaliku tey moo ko taxawee mooy koo xam ne it la ko waykat bi doon wax ne eh, bi taj jii di diine la yaqdimu cheikhahu ci yeesal diine lay liggéeyee la sëriñam sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yeesal na ko waxtu wu nekk doonoon borom makaarimul axlaaq nga xam ne Sëriñ Abdoulaye Jaxate nee na woon bi wab li juudin yaxiidul may mar xaysu naxa maa naa la maa raama man yëpp xiilahu masala ci waameew ngëneel waameew tedd nga lay dotti ci képp ku ñëw fi moom ndeyjooram ba di géejug tap càmmoñ ba di jees ci bépp noon soppe bu ñëw mu jox la ci ndeyjoor ba waaye noonu bu ñëw nag mu dog loolu mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moom la ñu ko tey fii nga nu fekkit di kër Serigne Mahamadul Mamoun Cheikh Abdoul Mamoun Serigne bi moo nu boole muy sunub Serigne waaye di xarit di sunu wëllëre yàlla dogal na nañ ko doom war na toll ci juróom at loolu kon bu yàgg la gis nga bi nga ñëwee it fi fekk ci taxawaay bi mooy lépp loo xam ne da koy nos di ko ànd ak noonu loolu yi baaxam ak yaatu la waaye gis nga waa gox bi it ñëpp kenn ku nekk ni mu jàppee sëñ Mouhamadul Mamoun ndax kenn ku nekk jàppe na la ab taalibe jàppee na la dëkkandoo fonk na la ñëpp jàppee ko ab sëriñ jikkoom ju rafet mu nekk it kilifa gu woyof waaye kilifa gu yaatu nekk kilifa goo xam ne la ko war rek ci la nekk te moo di jaamu yàlla ak xancu la maamam nekkoon Cheikhul Khadim ak la nekkoon Cheikh Abdoul Ahad defe tey boo xoolee ni béréb bi mel ak ni nit fi teew ni ñu wuutee bàyyi ko ci gox yu bari dalay wan rek jikko ju rafet ñi nga xam ne nekk na Cheikh Abdoul Mamoun muy kilifa gu baax kilifa gu woyof ñaan yàlla mu yàggal ko fi wéral ko ci barke xaadim rasul di leen jaajëfal yéen ci taxawaay bi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu m rahmatulahi taala wa barakatu ñoo ngi sant yàlla di sant sëñ Touba di sant sëñ Abdou Lahad di sant yàlla bu baax bu ñëwee ci bis bi ngir màggalu sëñ Abdou Lahad fii ci kër sëñ Modou Mamoun mu sëñ Abdou Lahad doon sama xar sama wëlëra di ku baax ci man bis bi jege see dama woo ay yoon yoon soññ ma ne ma na nga ñëw yenn ci kër gi wax ma yu bari daal yoo xam ne am na ci yoo xam ne mënu ma cee yegg sax kontaan naa trop nag ndax daa nekk sama xaritu bopp boo xam ne ku baax a baax la ndeysaanam te bëgg ma ma bëggal ko sama bopp ñu ñaan yàlla yàggal taxawaayam lool ndax sëñ moom dafa oyof trop boola ñu ci boppam boole ñu ci léppam daal ñoo ngi sant sëñ Tuubaa bu baax nag di ñaan ci bis bi ay xéewal ak sëñ bu yàgg fi bu baax sëñ Maamun gën a fekke bis bi lu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah